Heavyweight.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 ma nga nekkoon en service à l'action sociale bu wéré ngara ma ne dagg loxol jabar ji la def cay mbëggeel cey mbëggeel ak fiirange li tax ASP bi gor jabaram ji di woo ci turu akaanaak da koo soupçonné ak benn dëkkandoom ah mooy li may wax rek baru jàmbur kenn du miinanteeg moom waaye am na góor ñoo xam ni dañoo amul xel rek yëf yi nag mu ngi xewee ca commune bu saare koli sale ne ca wele ngara ma ne ASP bi huit coups jaasi la dóor jabar ji waaye kii moom ba muy def lii nit la si gannaaw bañ ko defee ñaawteef bi melokaan wiñ ko fekkee maara dee taali tereet gi sangu ko loxo bi dagg yeneen parti yu yaram bi am ay blessure yu grave waay moom métti na ASP bi def ñaawteef bi nag yoon teg na ko loxo teg ko daa di koy daan ñaar fukki ati kaso <laughs> ma ne na baaxul jàngat bi nag mooy jigéen daal boo demee baa amatoo ci moom confiance dem ba mënatuloo nekk ak moom waay waay waay ba mu dem waaye tamit ci beneen boor bi jigéen buy sëy am na yenn comportement yoo xam ne waratu la loolu nag mooy dëgg waaye nag am na jigéen ñoo xam ni dañuy bëgg sëy bëggit la ca des cuuc fii cuuc fee waay mënu ne waay waaw am jëkkër am càmmiñ bu góor ci biir koñ bi di ko fóodal di ko toggal ak a yekkal ning nga koy tamtamalee doo ko tamtamalee sa borom kër ay waay nag ni nga koy toppatoowee doo ko toppatoo sa borom kër ay waay yenn saa yi ngay wax ak sa jëkkër sax ne ko diwala gën fuuf ay waay teg ci dépense bu sa borom kër jox boo toggee ba noppi la ca gën a duuf gën cee baax waaja nga koy yekkal ay waay bu sa jëkkër waxee nga fol ko bu xëyee nga yendu kër waa ji ah! ah ne mooy li ma waxoon rek am na góor ñoo xam ne mii nan jabaru jàmbur la ñu bëgg te baaxul nag moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca kaw Kaolack doy na waar ab sàmmkat ak baykat ñoo fa jàppante sàmmkat bi daa di jël jaasi cor baykat ba loxo ba root laa ilaha illallah sàmmkat bi mu ngi wuyoo ci turu Souleymane Diallo baykat bi ci turu Matar Diop ne ñu Matar Diop ci toolam la nekkoon doon ko aar Souleymane Diallo doon tool bi ànd ak ki juram ci noonu la Matar Diop baykat arto Souleymane Diallo ngir juram yi bañ a dugg ci toolam ci la ñu waxee ba xol yi jóg ñoom ñaar ñu weccantey saaga ndey raag mujj dox seen diggante naka noonu Souleymane Diallo sàmmkat génne jaasi daa di cor Matar Diop baykat loxo góos bi ne tappi dagg coo Matar Diop nag bi mu daanoo ba ximmaliku ci la gisee ne amatul loxo gauche oh. fitna baaxul bi mu gisee deret di sang ko ci la paniqué daa daw yuuxu ci noonu lañu ñu ko yóbboo urgence soppital Souleymane Diallo mi def ñaawteef bi nag yoon teg na ko loxo ci wàllum coups et blessure ba loxo mujj ceeroot <laughs> ma waxaat ko fitna baaxul ci kanamu yoon nag Souleymane Diallo nee na légitime défense la defoon ndax Matar Diop moo ko wut woon ñoom ñaar ñu jàppante te lu ne mënoon na cee xew waaye nag kàddoom yooyu ñay àtte dañoo gis ne def ko làqee rek jëf ju ñaaw ji mu def Matar Diop ba tax procureur sàkk woon ñu tëj Souleymane Diallo fukki atikaso kaso askay tax ba bi ñu délibéré tribunal grande instance bu Kaolack mujj nañoo condamné Souleymane Diallo juróom-ñaari at ati kaso ay ma waxaat ko fitna baaxul moo tax ma ne jàngoro dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca Rufisque doy na waar jëkkër jabar lañu fekk ci seenum nekk ñu takk lakk ba jeex ëskay mbir mi mu ngi xewee ca cité Bata li waral jëf ci nag kenn xamagu ko ba fi mu ne yoon mujj na ceewu bi ab lanket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 ay waay ñu naan deeta waay ñu séquestré ko di ko jaayloo boppam waa lii moom am na ci miim réew ndaw si nag ba mu rëccee ci la ko waxe waa këram ci la ñu porté plainte ba tax samba booy yooyu yoon teg na leen loxo waaw góore waay moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xewoon ca USA ba ñu taal kër famille Jool ba ñu jaare fa ñàkk seeni bakkan mbir mi am na yeneen yëf yu bees ndax samba booy yi defoon lu ni mel leen yoon tegee loxo ba ñu leen di àttee ca tribunal bu Denver xale yi nee nañ dañoo jaawale kër gi ndax seen cible nekkul woon kër googu kër gi ñu cible woon ab këru trafiquant de drogue ndax trafiquant de drogue ya nekkoon ci kër googu ñu bëggoon a taal dañ leen a tegoon dil ci wàllum drogue te nag kat boo leen gisee xale yi wax li ay 16 ans la ñu am 16 ans Kevin Bu 16 ans Gavin Seymour 16 ans moo tax ay ndaw buñ leen yarul réew du am jàmm yar leen ndaw ñi mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz